man daal dama tëdd ba ay ay onze onze heures ci guddi ak minuit rek ay ay ay man yuuxu ay yuuxu yoo ma yee man man dégg yuuxu rek ay ñuy def buntu yi tell tell di ay ay ay buntu rek man man boobu boobu laa yeewu ma ma tasante ñu tasaaru ci biir kër man sax bi bi may génn a ab kuur baay fa laaj ma xaare ci buntu bi no dema bu ma ko amul woon nu ma def bon demay rek waaw noonu la dafa fekk lépp jaxasoo nag man bu fekk ñi wolu wóolu nañ gone génn nañ ñu ñu ñu jàkkaarloo ñoom ba ñu ba ñu leen kër gi ñu ñu ñu demaat nag ñu ñu vétéran ba ñu ñu ñu ñu ñëwaat ñu ñëwaat nag léegi ñu ñu taxaw ci ci ci kër gi ñu ne leen léegi moom kenn dootu dugg ci kër gi ba fa tasante rapport bi ñëw na. ak rey nañ ñetti béy yobb nañ juróom fukki kar. gaañ gaañ nañu ñetti ñetti suñu ñetti gone ñu yor oto bi ñoom ñëw fii ñu bi gétta bi ñuy chargé ñoom waaw chargé rek bi ñu laata jóge fii fekk chargé nañ bi oto fees ñu dem bi bi bi bi commandant ñëwee ubbil naa ko yëpp kër gi yëpp fu ci ne dugg na ci mu wiri fi wiri fi gisul dara gisul ngarnaay gisul poon gisul dara suñu gone yi am na yoo xam ne suñu gone yi nañ leen ñu yóbbu leen commissariat fali waxuñ dara de ñoom ñoom waxuñ dañu wisi waxuñ dara ñoom ñoom ñoom ku dañu taxaw buntu ñooy ana góor yi ko génn la ñu rëy leen génn leen ñu rëy leen la la man la la man la bi ma yeewal loolu laa dëkk génn leen ñu rëy leen génn leen ñu rëy leen sama rakk bi bi ñu toj boppam non non non mu ngi yoroon caméra am ka quatre cent cinquante mille noonu lañ ko yóbbaale waaw dee dee mosu ñoo sekk ak ñoom dara mosu ñoo sekk ak ñoom dara mosuñoo sikka ñoom dara ñun moom ñun moom ñun moom mosuñoo mosuñoo wérante Baay Faal sax wala wala kuloo wala sikka moom daal ah moom de moom nee na nee na nee na nee na bu buñ lefi ne buñu buñu buñ jugee ci lee ñuy def buñu buñ buñu lefi ne bu amee ay fan bu seddee de ñëw ñu mën a ànd ak moom foofu ñu dem ca ca ca kalifa bi ñu ñu ñu ak noonu daal wax génn yaa ngi tëdd ba ba ba nit ñëw ci yow moom moom léegi armée moom li koy génn. ñoom ñoom ñoom ñoo fi ñëw bu ñëwul woon fii duñ gis arme ñoo dugg ci kër gi ñu ñu ñu bëgg ñoo faagaagal waaw waaw. fii lay tëdd di xaar di ànd di wattu géttam dafa tëdd man mu dugg sama néeg sama baay xaar ko après mu jàpp ba pare julli daal di tëddaat ci lalam jàkkaarloog juraam ci la ñu ñëw fekke ko foofu ci lañ ko song dóor ko. warifuñ dara xooluñ dara lu dul jàpp ci naan nañ sooma ci néeg ba vérifié nañ bagage ba jël sama doom yi te doon sànni ko ci état bu gone gi nekk mooy parental bi ma jëloon léegi sànni ko ci état bi noonu muy wër noonu ah léegi leneen mënoon na fay xew am nu mu doon demee tey paas nañ fii tey jii ah kon di nga fekk beneen néew waaye li ñu wax man gis na néew fi ñu ne waxoo néew na man maa fa dem maa fa jël yeneen béy bi deewoon ma ñëw di ko sànni ko feneen dégg nga après léegi ci laa ñëw di beneen bi indiwaat ko fii ñaari fekk dee dégg nga man awma keneen léegi ca lañ yu ko ca jaar ci biir kër gi wuti fetal génn dugg kër sa nijaay dégg nga léegi su fekkee ne am na lu ñu vérifié biir ker maa fi nekk léegi nañ fi suñ gisee dara ne lii la ñu jàpp ma yobbu wala ñu jàpp boobi wattu juri yóbbu ko am du noonu waaye fi dara vérifié wuñu fi dara laajuñu dara salaamaaleykum rek daal di attaqué ku tedd kay ku tedd kay yomb naa rey kana yàlla dimbali kay kon suñu affaire am passé na. am déet ah yóbbu nañ sama juroom fukki xar yu juróom dem suba sax dem nañ ah xar yi dañoo naa xam nga ne kii oto ñoo ko seen kor dégg nga après ci xar yi daal di dow toj gët bi tiit fee lañ nekk ci gennaaw ca lañ omma fii maa ngi taxaw fii bëgg leen dem ñu ne soo fa demee bàyyi fay rëy waaye kon dama doon jël sama xar ñu na soo fa demee ñu rëy ndax boobu ñu ngi taxaw fële ñoo ko maa ngi dëgg ñu tit tit tit di ko door di ko door di ko am na ay xar bi fi bi ci des ni ci kër gi nii wëti na boobu dañ koo damm ab béjjén ya après daal yàqal nañu yàq bu méttee métti suñ ko doon jaar xam nga ne heure bi fi ñëw taf taf taf mënuñu fee nubbu dara am déet taf taf ni ñu duggee kër gi ba fa li ñu attaqué ak président yi ni ñu dikkee fii est ce que mën nañu dara xam nga xaju fi ah ay mi ay 11 heures ñu ni mooy boobu lañ fi nekk fa lañ ba fajar gaa yi suutoon ñoom. mbir mi di man fi ma njëkk a jaaxal mooy fi ñu ko jaaree si dañu doon wër li ñuy tere si dëkk bi ndax chef du village bii keroog bi sëñ Mountakha waxee day tere si dëkkam nangam keroog tànkam la def kër yu fi nekk yëpp da leen wër ku ne mu nekk sëñ bi joxe na ndigal dañuy tere nangam dañuy tere nangam te kër gi sama maamaati maam sax moo ko mag waaye lu mel ni mosu fee kenn mosu ko fee dégg. Hmm? léegi nag kuy tere loolu dox tànkam di wut tere loolu si biir si biir ay dëkk ndooyam kiram loolu war nañ ko faase yet nee nañu pool lañu doon wër nii lañ doon wër waaye fekkuñ gisuñ fi dara ah jàpp nañu kii jël nañu ay juróom fukki xaram moom mi alaji dem mii rakkam dóor nañ ko buntu néegam lañ ko dóori daj ñu daj porte bi bu dóor ko ba mu nga nee jànnatu ah ñu yóbbu quatre cent cinquante mille bi mu yoroon yaa ngi dégg ah keneen sa doomi nijaay kee itam kooku nag fii lañ ko dóore man maa ko yóbbu woon daamaatu yaa ngi dégg kii nga xam ne moom wattoon jur yi fii lañ ko fekk dóor ko mu ngi mu ngi hôpital tëdd léegi nag bu ñu defee noonu nag ñëw fekk nit ci géttam dóor ko rawale loolu dugg ci biir kër fekk ay jigéen di dagg ay bunt di sànni ay gone loolu kay kana kana lu ne mun na faa war a xew man moom seedu wu ma baay faal bu dee seedu wu ma bal seedu wu ma lara man bi ma doyee ma ki gaay ki nga xam ne bu gaay ki ñu dóor ci bopp bopp bi toj maa ko jël yóbbu ko yaa ngi dégg ki nga xam ne moo wattoon gétta gi ñoo daanu ci moom dóor ko fii doog dugg seen néeg yi jigéen bi doon wax fii mooy magam ay léeru ma dem ma ci néeg yi man moom foofu laa ci waaye nag lépp lépp lépp bu fekkoon dañu agsi woon ci njëkk ak terang ñoom ñëw nañu fii ñu naan na ku ñu yónni ñëw na fii jënd jëndaat jënd jëndaat kanakaay ki ñëwoon jënd jëndaat kooku war naa mën a jiite mu naan kii mooma a jaay jaayaat na wala du dégg wala mu naan kër gi laa ko jëndoon jëndaat ko waaye ñëw nañ fi kër yi kër gu mag la rek ku nekk ak kiram ku nekk ak kiram ah kër seet village lañ jéem ñun kay jàmm rek lañ bëgg ni kii ni sëñ bi sante woon ni ko sëñ bi woon kii sant ñu ko ñun ci loolu rek la ñu wéy ci ndigal rek la ñu wéy ñun itam ba tey Baay da yi dañoo nekk Baay Faal waaye ñun itam ay murit la saadix lañ nangu murit itam ndax kii keroog bi ko sëñ bi dogal waxee loolu daa sol dàllam mooy chef du village bi kër yëpp lii mu village yi yëpp da leen koo wax ni mu bëggee foofu jàmm nuñu tam noonu lañ ci bëggee jàmm lu ñuy tere buñ ko gisee suñu bët sax ñun dañu koy tere sëñ bi lu mu lu mu santaane lu ñuy tere buñ ko gisee seetuñu Baay Faal seetuñu gendarmerie seetuñu police dañ koy jéem a teral suñu bopp duñu xeex nag duñu def dara suñu doom yi ñu jàpp dañu leen ramax rek fekk fekk ñu leen ci dara fee lañ fekk kañ toog ci buntu bâtiment bee bu ñu leen fekkee foofu ñu ramas leen ñoom yëpp yóbbu yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ci kër gi lañ dek am na ñoo xam ne yeneen kër yi wor nii rek dañoo doo wëllu si rek am na ñoo xam ne sax dañoo ak agsi rek tombi ci ñu jëlaat leen noonu waaw loolu moom yoon moo xam lu tax mu def ko waaw loolu moom ñu sori ci loolu yoon moo xam waaw man li ma njëkk a jaaxal mooy ay mi ay min mi moye kanaa kuy ñëw di visité kër doo ñëw min mi moye nga war xaar ba yoor yoor wala ba ay 10 heures 11 heures midi une heure nga ñëw su fekkee dañ laa tegtal kër guy jaay poon wala sangara nga ne kër gii laa jëndoon poon wala kër gii laa jëndoon sangara ñu jàpp ki la jaayoon yóbbu ko am na walla amut waa ñëw dem ba mi mi mooyee ñëw taalu mot juróomi oto ñëw ba ci papar kër nit ngeen di génne ay jaaseek door ak bant di di di di toj ay bopp kana loolu kana ñoom wistuñ wistuñ wistuñ poon ñoom kenn bañul yëg kenn yëgu leen sax ñoom dañoo jékki rek jékki-jékki rek ma ba ci kër dañoo bett kenn yëgul kenn yëgu leen ñoom kenn yëgu leen ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne dara ci kër gi kenn yëgu leen ndax kii kii dañoo fekk mu ngi nelew kay ñi kay kii ñu dóor fee dañoo fekk mu ngi nelew wana kana ku nelew moom defu dara léegi biñ leen wax dara góor yi fi ne anañ gën leen ñu nangam taan seen day lañ fi wax kese góor ñi fi ne ana góor ñi jigéen ñi yuuxoo ñu ne soxla wuñ jigéen ñi góor lañu soxla lañ gën nangam taan seen lii di lañ ma fi wax wax ñu fi leneen am na eh, béy gis ngeen leen wante xar yi gisul leen wante am na lu am la yaa ngi dégg ñii ñu ko tëdd hôpital ñi yóbbu nañ seen alal ñi yóbbu nañ seen xar ñi yóbbu nañ seen xaalis dama yaakaaroon Baye Fall Baye Fall fekkee da ngay doxee ndigal soo ñëwee ci kër da nga war a xam nooy doxale ndax ñun ñëpp ay murid lañu ñun ñëpp ay baay faal lañu ñun gisuñ gisuñu ku faatu ñun ñooñu gisuñu dégguñu ñun gisuñu dé dara ñun ñun daal seen burwe lañ dégg dégguñu leneen ñun daal burwe Baay Faal lañ dégg ku la wax fii déggaan beneen burwe wax wax na nan lañ taxawee jigéen ñi wooy wooy wooy ñu yu yuuxandoo ñun ñëpp añ daj bi ci ci ñun ñëpp jigéen ña lépp moo taxaw fii ci état bi wante ñun gisuñ fii leneen lu dul bett nañu dóor nañ bi ñuy bugg a dee lii lañ fi gis. dañoo bëgg affaire bi ñu bàyyi li ñuy def ngir yàlla ak jëmu Serigne Touba ndax gënuñu ñoom gënuñu ñoo nekk ay murit ñun ay murit saa def lañu. yaa ngi dégg ndax fii mooy suñu cosaan ñun xamuñu fenn fudul fii yaa ngi dégg Daar Rahman. ñu fii lañ fekk jumaa ji fii lañ fekk suñuy maam fi koy tabax fii jumaa ji ne teen moo fa nekkoon suñuy maam ñoo doon wogg foofu ay nag yaa ngi dégg kon nag génn ñu génn ñu ci Tuuba yaa ngi dégg jumaa ji sama maam def na juróom-ñaari kabban kon nag xam nga ne génn ñu nekk ay murit sëñ bi ah, sëñ Mountakha li muy tere ñun ñoo gën a ñun ñoo ko gën a mën tere loolu la ñuy bañ fii lu mu bañ Tuuba rek ñu bañ nañ ko fii Baay Faal man bu lee démb ma gis leen def ni façon bi ñu def bu leen démb wante lii moom nañu dimbali ngir yàlla bu mu ñaaraat ñun béy ak sàmm lañ fi doon def bi bor nañu ñëwee ñu bay béy yaa ngi dégg ñu ñuy sàmm gisuñu fi tool gisuñu fi dara lu ay bor fii mooy cay faali cay faali cay faali lii ñuy wax fii ay teenu maam seex ak ay fii ak ay sekew gaag dara amu fi woon fii daaru marnaan moo fi amoon kër ñang sol bokk cay faali boo bëril waaw boo dëkk moo ñu fekk fii ñun borom dëkk moo ñu fekk fii de ñun fekk si fuñ ko moo ñu fekk fii yaa ngi dégg borom dëkk moo ñu fekk ñun fekk fuñ ko de moo ñu fekk yaa ngi dégg moo moo ñu fekk ñun ak sëñ Abdou Mbacké borom dir borom dëkk moo ñu fekk de ñun fekk wuñu kenn yaa ngi dégg fii moo fi nekkoon cay faali sol bokk boo bëril sëñ Gumba Sall mais ndindi sëñ Fallou ndindi pël ndindi sëñ fallu daar Rahman béyleel nay lii moo lii moo fi nekkoon soo musaana jóge fii ngay dem tout jumaa ja fii lañ doon def tànk julli jumaa ja saret amu fi oto amu fi kon nag ñun duñu fi duñu fii ay ay tourisme fii ñun fii lañ dëkk